أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على أشرف المرسلين sayidina wa nabiyina muhammadin alayhi salaatu salaam wa ala ashaabihi ridwanullahi alayhim ajmain wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi mbokki àdduna bi mbokk yi seetaan Sunugal 24 ci seen émission bi nga xam ne moo tudd leerlu ngeen ci faral di ànd ak seen mbokk oustaz Basirou Thioune maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaar di am cofel ak mbëgte ak mbëgte ci yéen ci topp bi ngeen ñi topp fii ci Sunugal 24 ci seen émission bu am solo bi nga xam ne moo tudd leerlu ñu fiy leeral mbiru diina waaye balaa ñuy dugg ci waxtaan bi bi koor gi weesoo ak léegi bi mooy numéro un ci seen émission leerlu bi nga xam ne mu ngi doon am ci biir weeru koor wi ñu ngi leen di ndokkeel yéen ñëpp ci weeru koor wi nga xam ne ci lañu génne di ñaan yàlla mu nangul ñu suñu koor gi nangul leen waaye it mu jéggal ñu suñuy rëcc rëcc te may ñu nag ñu fekkee ko ay at yu baree bari bi jaay jaahi sayyidil wujud salawaatullahi wasalaamu alayhi di ndokkeel àddina bi yëpp surtout nag ni ñuy bàyyee xel seen site bu am solo bii di sunu 24 di wax ne mbokk yi tey nag li nga xam ne moom lañu fa yéene waxtaan ak yéen muy loo xam ne lu concerne jullit yépp la loolu mooy lan mooy mbirum Palestine mu nekk xaddi boo xam ne bu jaaxal képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu waaye it ñu xam ne qadiya Palestine lu wara a yitteel julliti àddina bi yépp la su fekkee ne gëm nañu alquran gëm nañu suñu borom subhanahu wa taala gëm sayiduna muhammad alayhi wassalaam ndax masjidul aqsa min sha'airillah bokk na ci symbole lislaam yi yi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala moo ko cité kon nekkut n'importe quelle place déedéet masjidul aqsa muy jàkk joo xam ne suñu borom moo ko barkeel ak lépp lu wër masjidul aqsa te foofu mooy réew mi nga xam ne moo ëpp lu ñu suul ci ay ci ay yonent waaye nag maal asaf jullit yi yu bari ci àdduna bi ñu ngi seetaan téye seen loxo téye seen gémmiñ ñi muy def benn réaction lu ko waral mooy ñàkk am gëm-gëm gu dëgg gu dëggu du lenn lu moy loolu lu ko waral ragal ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw Israël loolu képp moo ko waral jiital ci nag ñu jiital ci nag Arabie Saoudite bi nga xam ne mooy réewum numéro jullit numéro un ci symbole lislaam ndax fa la bi alayhi salaatu wasalaam juddoo moom mi nga xam ne moo gën ci mboolem anbiya wal mursalin waaye it mooy réew mi nga xam ne fala la bi alayhi salaatu wasalaam tëdd fala la masjidul haram nekk fala la masjidul rasul nekk waaye nag ñoom ñemewuñ cee wax moo tax dama koy faral di wax ci samay waxtaan ne àdduna bi seen diina buñ ko baasee ci réewi naar yooyu suñ diina dina échec ndax ñoom réew yooyu boroom xam-xam ya rek ñooy métti lu xaddiya Palestine te ñoom amuñ ay arme arme bi ci loxol buur yi la nekk te buur yi ñuy réussir boroom xam-xam yi ak aima yi lu ñu man mooy di julli di ñaanal waa Palestine bay jooy mu nekk lu daw yaram man mënuma seetaan vidéo yi nga xam ne mooy jóge fee nga xam ne mooy Palestine ndax daw yaram ak métit bi nga xam ne nii moom moo ci nekk mbokk yi jullit yi war nañuy seetaat seen bopp bu baax a baax est-ce que gëm nañu alquran day dét gëmuñ ko au fond ndax kat su fekkee ne ñun dañu wax ne gëm nañ alquranul karim te muy dëgg ci ñun te suñu borom subhanahu wa taala wax ci alquran ne subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa sell ñeel na borom bi nga xam ne moo rañaane ab jaamam muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam jëlee ko fi nga xam ne mooy masjidul xaraam mu dem masjidul aqsa te mooy euh, jàkk ji nga xam ne moom la yonent yàlla ibrahima alayhi salaam tabax gannaaw bi mu tabaxee masjidul haram waaye borom bi subhaanahu wa ne allazi baarak naa xawlahu béréb la boo xam ne ñun yàlla ñoo ko barkeel li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basiir ngir ñu wan ko suñuy kéemtaan muy jàkk joo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu gàddayee màkk ñëw madinatul munawwara buñ daan julli foofu lañ daan jubli lañ daan jublu kon mbokk yi ngeen xam ne masjidul aqsa du n'importe mais nag ñi nga xam ne ni ñoom ñooy juif yu bon yi yahood yu kàccoor yu bon yi ñëw fa ñu indi leen fa ñu placé fa dem ba nekk gan goo xam ne day yeewi bay ñuy jàpp ay jullit di leen rey ñuy jàpp ay gone di leen rey di rey ay mag di teqale diggante doom ak yaay ni mettee ci xol macha allah mu nekk lu métti wala sax ñu ne wal iyaasu billah ci teqale diggante yaay ak doom ngeen baal ma damaa tàmm macha allah ba mu ëpp loolu mu nekk loo xam ne àddina bi yëpp ñu ngi koy gis ñépp ne tekk kenn waxul lu mooy Erdogan yëkkati ci ay kàddu moom ak ministre bi nga xam ne moo yore wàllu bitim réew wala ministre bi yore wàllu défense mbokk yi mbirum Palestine bu demee ba yegg si fii dara waral ko lu mooy jullit yi ñoo deful seen rol ñoo deful li leen war ndax kat borom bi subhaanahu wa taala lim ñi sant ci bennoo ñun ñépp ñu ànd nekk di ay jullit bokk benn gëm-gëm bokk benn bëgg-bëgg bokk lu ñu yéene wante buñ ko defoon ni ñu ko alquran sante konoon li nga xam ne moo dal Palestine nii duñu dal du leen dal ndax jullit yi seen doole yegg na ci ñu mën koo defendre te borom bi subhaanahu wa taala daf ñu wax ci alquran ne bi hablillaahi jamihan wala tafarraqu yéen ñëpp na ngeen nekk benn jàpp ci genn buum waaye bu leen teqalikoo ndax bu ñu teqalikoo rek ñu man ñu te nag xadiya bi nga xam ne mooy xadiya Palestine jullit yi ñoo teqali ko waaye bu ñu àndoon nekk benn Égypte ne déet Algérie ne déet Afghanistan ne déet Syrie ne déet Iran Irak ne déet Arabie Saoudite ñoom xuttu yu ragal yooyu ne déet Libye Maroc ñëpp ne déet kon Israël dana toog ndax konoon américains yi danañu xam ne duñu mën a dékku loolu Sénégal ne déet Sénégal gi ma dëkk mais ñoom moom ñemewuñu ko ñemewuñu wax déet waaye ñu ñëpp ñu ngi seetaan li ma ci gën a metti nag mooy léegi léeg nga dégg fii ci senegal ay imaam yoo xam ne dañuy dem ca ambassadu Israël ba di fa sibooru ñu leen di jox ay ndimbal ndimbal boobu bu ñu ma ko joxoon dama koy goqi jombale naa sama bopp di lekk ndimbal boo xam ne dafa jóge ci ambassadu Israël ñoom ñi nga xam ne noonu lislaam lañ ñoom ñi nga xam ne noonu Palestine lañ du ma ko lekk man ki nga xam ne sama noon nga ndax képp ku nekk noonu jullit sa noon la ku nekk noonu jullit nag war a ko bëgg war a bëgg alalam xam nga borom bi dafa wax ci alquran comme aay bi ma wax léegi wa atihu llaha wa rasulahu wa tanasaw fa tafshalu wa tazhaba rihukum borom bi nee na su ngeen xëccoo rek dangeen di échec seen force dem waaye nag wasbiru inna laa maa sabirin na ngeen di muñ ndax yàlla kat day ànd ak ñi nga xam ne ñooy muñkat yi ñu jàpp ñooñ nga xam ne ni ñooy waa Palestine nañu muñ noot leen jaay leen doole ci loo xam ne insistis la teguwul fenn àddina bi yëpp di ko seetaan waaye nag gis nga européen yi fexe nañ ba nekk benn américain yi fexee nañ ba nekk benn mais Afrique ak Asie ba léegi ñoom nangu ñu nekk benn moo tax li leen dal di dal di leen dal ñu dal ci kaw Irak def ko luñ ko def dal ci kaw Afghanistan def ko liñ ko def dal ci kaw Libye def ko luñ ko def Iran rek lañuy ñuy waaj Iran rek la ñuy waajal mais pexe mu nekk ñu ngi ci pour dal ci kaw Iran xëy na am na luñ ko xaw a ragal lay tuuti. mais gis nga noonu la ñu def depuis ay at at lu ëpp fanweeri at ñeent fukki at ñuy fitnaal ñi nga xam ne nii ñoom ñooy waa Palestine yi te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne masalul muminina fi tawaadudihim wa tarahumihim wa taatufihim masalul jasadil waahid isastaka udduwun tazahara tadaa saa saa'iral jasadi bi sahri wal xuma yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na jullit yi daal seen misaal ni mel mooy mu ngi mel ni ki jënn jëmm joo xam ne maanaam benn cër bu feebaree rek yeneen cër yi yëpp ñëw participer ci li nga xam ne moom mooy feebar boobu noonu bu dee nee tànk bi mooy métti yeneen cër yi duñ dem bu dee nee loxo yi mooy métti yeneen cër yi duñ dem liggéey bu dee bët buy métti la ba tey kasaalika naka noonu ñoom ñëpp dañuy participer kon jullit yi ñoom ñëpp ñoo war a am naqar ñoo war a am méttitlu ci li nga xam ne moo dal waa Palestine. moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon beneen addis bu am solo ne al muminu lil mumini kal bunyaan baax ba'duhu ba'dan suma shabbaka bayna asaabi'i yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne jullit yi niñ war a mel mooy ni ab mur nga xam ne ñoom dañuy dëgëralante dañuy dimbalewante mu ràbbalante ay baaraamam ne nii lañu war a mel rooflante di dimbalante di jëriñante waaye kenn ku nekk nangu sa morom war la waaye kenn ku nekk war a am njëriñ pour sa moroom borom bi subhanahu wa taala wax ci alquran ne innamal mu'minuuna ixwa fa aslihu bayna axwaykum wattaqullaha laalakum turhamuun mu ne jullit yëpp ay mbokk lañ kon jullit ji lu tax ñuy seetaan jullit yëpp ay mbokk lañ xoolal rek xale yi nga xam ne ñoo bëttoon frontière bi dox ak seen tànk dugg frontière bu Palestine ne dañuy dem pour participer ñun ñoo am gëm yàlla neen defar leen seen mbokk gi waaye it ngeen boole ko ak yàlla ndax yàlla yërëm leen kon mbokk yi benn addis rek lañ koy tëje incha allah mu nekk loo xam ne lu ñu métti la ci sunu xol métti jullit yu baree bari waaye nag ak yàccaaral daf cee am yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam dañ koo rey ngir défendre diinaam fa huwa shahidun képp koo xam ne dañ koo rey ngir defendre alalam fa huwa shahidun képp koo xam ne dañ koo rey ngir défendre deram shahidun shahid la képp koo xam nañ koo rey ngir défendre deretam wan qutila doona dammihi foo huwa shahidun képp koo xam ne dafa défendre deretam ba faatu shahid la kon ñoom dañuy protéger seen patrimoine mooy seen suuf bi nga xam ne ñoo ko moom ay nit ñëw di ko nangu ci ñoom ñuy défendre loolu bëgg ñëw jël masjidul aqsa bëgg jël euh, béréb bu sell boobu féetale ko seen boor di sulli ay néew mu nekk def ju ñaaw a ñaaw kon ñëw képp ku ci dee rek ci falastine shahid la directement àjjana la jëm yàlla yàlla dimbali leen taxawu leen aar leen te wàcce jàmm ci réew mi te teggil waa Palestine li nga xam ne ni moom moo leen dal lii nag moom mooy suñu participation comme lii lañ ci man ñu daal di def rek jëfandikoo rek addis bi nga xam ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne man raa minkum munkaran fal yuqayyiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi fa zalika adhaful iman ñun nag amuñ force bi mais am nañ suñu kàddu di woo àdduna bi yëpp di woo sénégalais yëpp ñu ànd métti lu li nga xam ne moo dal ci suñu mbokku palestiniens yooyu te di leen ñaanal yàlla musal leen yàlla xetti la teggal leen seen noonu bon boobu ki àndoon ak yéen ci waxtaan bi mooy seen mbokk oustaz Basiru Cuun di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal leen ko bi jaay seydil wujud alayhi salaatu wasalaam jaaxlana allahu min allasina yastamiuna alqawla fa yattabi'uuna ahsana wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu